waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal ñu ngi lay nuyu di leen siyaar tey nag ñu ngi fii ci kër Djibril Sune jàkkaarloog Omar Cissé waaw moom mi nga xam ne mooy béykat bu mag bi waaw jàppale lool Jomaay waaw ak président Ousmane Sonko kon Omar ñu ngi lay laaj mbay mi comme yaa ngi ci toolu instant bi ñu lay laaj yow nan nga gisee mbay mi ren ak fu mu toll ak ban taxawaay la si président am. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ moor Gueye ñu ngi lay bëggee di la di la kontaane di la wax ne la actuellement ñu ngi ci tool yi ci mboq la mooy mboq mi nga xam ne moom laa ko moom laa doon bay fi ma koy bi ma na ma nañ ko def eh, euh, terrain football. alhamdulilah am nañ ci réussite totale sant nañ yàlla ci loolu. alhamdulilah kon. waaw euh, wàllu euh, mbay mi ren macha allah sant nañ yàlla. ci mboq. ci dugub. gerte yi nag nit ñaa ngi koy jëw. man loolu nekkuma ci. Mhm. li tax nekkuma ci. Mhm. mu ngi ci suuf. Mhm. xamaguñ li ci ne. te du man du ma ko buddi di ko seet. dëgg la ko def dëgg la. dañuy bàyyi yàlla lim moom. bu ñu àggee ca lañ moom. waaw ñu téye lañ moom. waaye nag man du ma buddi naan doom bi fii la gerte gi nii la ndax euh, ñun amuñ dara. liñ man mooy liggéey. dëgg la kii ñoral mooy yàlla. wallaay kii baaxal mooy yàlla. wallaay ndax tey am na ñoo xam ne nii. jiwoon nañ te fekkewuñ walaay dëgg la. am na ñoo xam ne nii dencoon nañ jiwu te jiwuñ. dëgg la am na ñoo xam ne ñor la leen ta mosuñ ci. dëgg la li ñu am nañ ko sant yàlla te continuer te sant président. Hmm. Bassirou Diomaye. Hmm. le premier ministre Ousmane Sonko. di hmm. leen wax na leen euh, gis nañ taxawaay bi. donte ka fi ngeen jotee yëf yi. ak ak fii nawet bi commencé. diir bu gàtt gàtt la. waaye nag def ngeen ci li ngeen man dëgg la nag li gars yi di wax àggalul waar waaye yokk na ñaax na jàmbaar ndeysaan ko mooy borom mbég mi Basiru Basiru ba tey itam Mor bëgg naa ñëw ci mhm. législatif yi waaw dëgg la waaw bala nga ñëw ci législatif yi dafa am na foofu ñëw ak yow bisimilah jàpp nga ne léegi dugub ji mhm. macha allah alhamdulilah yàlla yàlla xeeb dolli waaye à peu près tey bu après ñaata tonne nga am ci dugub mhm. waaw ñaata nan la war a toll ak mboq mi aussi baax baax bi nu mu war waaw xam nga bu njëkk mag ñi li ñu daan def mooy bay dundee waaw mais loolu jog nañ ci léegi fa ngay bay yàlla defal la sutura nga am ci loo dundee ba pare am ci loo dimbali ko dëgg la loo dundee ak noo dimbale ko wallaay sant nañ loolu actuellement dugub ji nag góom nañ ko waaw ñu ngi ci takk bi ak ak jaag bi ak dajale bi ci loolu lañ toll waaw allah allahu rabbi njort nañ ne liñ am yàlla mën nañu suturaal ñu dund ci ba dimbale ko ci ñu ngi ñaan yàlla lekk ko ci yaramu sedd amin ak xel mu dal amin yaa rabbi ci yàlla boole allahumma amin loolu la ñu ñaan ci yàlla amin amin nag vraiment li ñu ñaan daal mooy li ñu am ñu lekk ko ba mu jeex yàlla jox ñu leneen dëgg la dëgg la dañu ñaanal yàlla lépp lu waaye am yàlla bul ko utee ndeysaan waaw ci barke dëgg la waaye léegi nag question bu ñuy xam ne moom la ñu ñëw mooy lan ngay wax Bassirou Diomaye Faye ak suñu président premier ministre Ousmane Sonko si mbay mi taxawaay bi fii ci diwaanu Ndiombato si kër Jibel Suun. waaw fii ci capitale Ndiombato. fii ci commune Nioro Alassane Tall. dëgg la. ci kër Jibel Suun capitale Ndiombato. Mhm. man Omar Cissé man maay wax yow ak El mhm. waaw li li nga xam ne ni ñu ngi leen koy ñaaxee. waaw di leen wax ne leen. baykat. lim am. Mhm. mooy lam mënta am. muy engrais. muy teel. ndax engrais bu teelee. Ah. te ñu mën koo gis. mën a xam fi ñu ko mën a jëndee. dëgg la ndax prix subvention. tey ku bay lu mat euh, di hectares gerte. ah. prix subvention. mënul la jox la nga soxla. walaay dëgg la nga bay sept hectares dugub. prix subvention. mënul la jox la nga soxla. dëgg la nga bay huit hectares mboq. wala quatre hectares mboq wala ñaari hectares mboq. dëgg la. prix subvention. mënul la jox la nga soxla. walaay dëgg la waaye nag bu fekkee engrais bi taxaw nañ ne. engrais baa ngi ni ñu def ko ni ceeb. da gàdd daaral hmm. fu ko waaye bëgg bëgg mën koo faa jënde ji hmm. bu boobaa ñun hmm. satisfait nañu liñ bëgg lépp dëgg la baykat daal engrais mooy problème am walaay dëgg la maanaam li nga war a def def nga ko mooy ruuñ nga dëgg la denc nga jiw man contre naa joxe jiw man personnellement man ndax tey jiw état jiw wi état di joxe dana fekk baykat yi ñoom xooli nañ seen jiw ba denc ko dëgg la yaa ngi dégg jiw wa ñuy joxe jiw woowu la koy bay tuuti lañ dëgg la waaw baykat dëgg mhm. da ngay denc gerte ga nga bay mhm. ca na fa ko bàccee mhm. ca nax ba fa nga koy pudaree wala nga peree ko fa ñëw boo ñëwee fële nga koy teg dëgg la mooy doon jiwu déwén ba bu ñu yàlla yóbbu bu ñu ko fekkee bakkan walaay dëgg la ñun ñuy joxe jiwu booba du ñun jiw woowa du ñu jëriñ dara béykat li mu munta am loxoom jotu ca kattanam àggut fa mooy engrais walaay dëgg la te engrais bi bu teelee ah. sant yàlla dëgg la bu kon loolu nga wax am na solo lool te jàpp nañu ne président dana si jot premier ministre aussi dana si jot. waaw loolu lañ bëgg rek. léegi nag lu ñuy ñëw ak mooy législative yi nga xam ne ñu ngi koy dëñmal. Mhm. Omar ban taxawaay nga si am. Mhm. waaw fii si Kër Jibe Suun fii si commune Nioro Assane Tall. waaw arrondissement Touba côté département ñun li nga xam ne nii. ah. mooy suñu taxawaay waxoon naa ko. waaw. Euh, euh, ñoom Bassirou Bassirou Diomaye Faye. Ousmane mhm.